woon fi jàmm fekkat fi jàmm kon nag salaam mbokk ak xarit yu ni seetam ci gfm point sn wala youtube slash tfm dal leen jàmm ci seen émission gis ci sa bopp mu mel ni seetu saa yu tasaaroo képp ku for jàkkaarloog moom gis boppam balaa ngay wone sa bopp wala laata ngay gëm sa bopp nga fekk ni li ngay dund nga gis ci sa bopp moo tax ñu leen koy waxee rek nit ku ne fi sa xam-xam yem foofu la sa ndox di tàmbalee moo tax fu mu toll dañ war di gëstu di chercher di jëm a gis li nga xam moo nekk ci biir di leeral mbir yu bëri moo tax ñu àndandoo ak yéen mu mel dañ leen di fàttali ñu delluwaat ci suñu rétroviseur. politique gu Sénégal nekk na politique boo xam ni tey bu ñu doon bind page histoire politique gu Sénégal dañ naan am na moment yoo xam ne neex na am na moment yoo xam ne rafet na mais am na moment yoo xam ne dafa mouvementé mouvementé boobu nag suñ koy wax dafay ñëw toujours ci ñaari kuy yoo xam ni duñ mën a bokk li nga xam moo di mbalka loolu daf ñuy indi ci histoire politique Léopold Sédar Senghor mi njëkk a nekk président Sénégal en 1960 dañ leen di wax ni que ki nga xam moo di Lamine Gueye moom moo ko dugal ci politique. moo ko fekk mu nekk enseignant parce que Senghor enseignant la woon poète la woon mais dundul woon ni dina yaakaar ni dugg ci li nga xam moo di politique waaye kii nga xam moo di Lamine Gueye moo ko dugal ci boppam indi ko fi nga xam moo di Sénégal dugal ko ci politique waaye ginnaaw bi ñu ba ci biir dafa mel ni dualité am na ci seen diggante ci ay années 58 tëbbante tànk jëlante jaasi rayante militant yi ak ay mbir yu doy waar bi ñu demee ba 1960 jël li nga xam moo di réew mi ah Senghor nekk président dualité boobu ñëwaat na digganteem ak ki nga xam moo di Dia Mamadou Mamadou Dia en 1962 moom ak Senghor déggoowuñu woon au sommet de l'État ki nekkoon président de la République keneen ki nekkoon président du conseil mu mel ni kii titre honorifique la am keneen ki am li nga xam mooy pouvoir doxal dëkk bi indi na coow ba Mamadou Dia yóbbu nañ ko fi nga xam moo di prison dualité boobu dafa continuer ci li nga xam mooy la vie politique au Sénégal ñu année yi nga xam mooy année quatre-vingt-dix yi tamit boo leen seetloo ba ci biir parti politique yi yooyu dafay faral di am mu mel ni ki nga xamu ni maître Abdoulaye Wade ñëpp xam na ni ki ko doon secondé mi ngi nekkoon ah ki nga xamu ni Ousmane Ngom mais Ousmane Ngom ci biir parti bi amoon na dualité maanaam wujje bu doxoon digganteem ak Idrissa Seck maître Wade bi muy tranché seen diggante ku ne ma am lu mu la dénk frustration xëy na ñëw na ci ki nga xam moo di Ousmane Ngom ba mu génnoon fi nga xam moo di PDS dem créer beneen parti bu ñuy woowee le PLS parti libéral sénégalais. tànk yooyu mu jaar tamit Jean Paul Dias mi nekkoon biir PDS tamit loolu indi na moom tamit ci seen biir mu amoo réeroo ak maître Abdoulaye Wade ba mu génn tamit créer li nga xam moo di BCG. loolu moo indi en 2000 boo leen di fàttaliku. ki nga xam moo di Abdoulaye Wade ak Idrissa Seck ak ña mu àndaloon dañu créé CA 2000 waaye dafa mel ni ah convergence 2000 tam bu ñu koy wax kii di Ousmane Ngom ak ki nga xam moo di Jean Paul Dias ñoo si àndoon jàppale le président Abdou Diouf ci élection boobu ñu gagné leen. dualité boobu dafa continuer yamul foofu xam ngeen ni en 98 laata ñuy àgg ci li nga xam mooy 2000 Djibo Leyti Ka nekkoon fi nga xam moo di parti socialiste indi woon na fa duyalité ci biir fi nga xam ni moo di PS digganteem ak Ousmane Tanor Dieng mi nga xam ni gis nañ ni dauphin wu ki nga xam moo di Abdou Diouf la woon. loolu indi moom tamit ak courant bi mu créé woon ci parti bi mu indi ay jeexi jaaxa ba ñu exclure ko génn ko fi nga xam moo di parti bi mu créé URD mooy caabi boobu mu doon yor di wax URD c'est la clé. waa ah, mooy caabi dëkk bi moo war a régler seen problème loolu indi woon na ko nag benn ola boo xam ne ñëpp dañ ànd ak moom ba bi mu demee 98 élection législative mu amoon 11 loolu bettoon ñëpp loolu dafa continuer dualité boobu la mattoon jiboka dafa mel ni moom matt ki nga xam ne Moustapha Niass ba laata ñuy dem élection 2000 Moustapha Niass génn na fi nga xam moo di parti socialiste créé créé li nga xam moo di AFP moom tamit ci mu dem élection am 17 pour cent dualité boobu dafay continuer maître Abdoulaye Wade ba mu jëlee réew mi ak Idrissa Seck bi ñu demee ba 2004 mu nekkoon premier ministre Idrissa Seck mi tamit dem nañu taqal ko ci mbirum chantier de Thiès donte sax waxoon nañ ko keroog am na yeneen yoo xam moo leen boole moom tamit dañ ko exclure génn ko fi nga xam moo di PDS mu dem créer li nga xam moo di réew mi dem ci élection en 2007 2008 2009 ki nga xam moo di président Macky Sall jëlee nañ ko ci primature yóbbu ko coow tamit judd na digganteem ak maître Abdoulaye Wade loolu moo indi tamit moom tamit ñu buntu xataal ko ci d'après ni ñu ko jàngate ba mu génn créer li nga xam moo di APR yooyu dualité day am ci biir politique ci gis-gis ci kii yégal kii kii wàcce kële wala ñaar ñoo xamante ne ba bi ñu ba ci biir Malick Noël Seck nga xam ni moom ca te dëgg dëgg dëgg ñëpp xam na nañ ay yëngu-yëngoom ci biir parti socialiste yàgg na dem fi nga xam moo di prison mais moom ak Ousmane Tanor Dieng dégguwuñu ci kaddu ba Ousmane Tanor Dieng fexe na tamit ba ñu génne ko ci nga xam mooy jeunesse socialiste bi daal di koy exclure loolu nag day wéy ci politique bi ba jamono yi gis ngeen ne Moustapha Niass kaddu yooyu mu fi yëkkati woon ci seen bureau politique la wala genre congrès bi ñu def noonu coow loolu fa amoon yëpp parce que ci biir parti bi dafa am ñu fa bëgg indi ay yëngu-yëngal pour seen candidature en 2017 ki ci gën Malick Gakou nag ñu bëri dañ ko jàppal tànkam ku mel ni ki nga xam moo di Goumbala ñoom ne neen mooy nekk seen candidat en 2017 Moustapha Niass ni loolu dafi amee ci fi nga xam moo di parti bi ba loolu indi woon na coow coow loolu nag fa mu aboutir mooy gis ngeen ni fan yi ñu génn kii nga xam moo di Malick Gakou moom tamit dañ ko exclure fi nga xam moo di APR ak ay ñoñam toll nañ ci fukki nit ak ñaar yoo xam ni dañ na dàq génne leen bi ñu ko génneeg léegi nag ñu bëri neen nag jot na nag mu wax ñu ngi koy déglu ndax day créer li nga xam moo di parti wala dafa nekk koo xam ne présenté wu en 2007 ni ko Goumbala waxee Malick Gakou ñuy xaar la lay réagir am na sax rumeur yu jug ni fi nga xam mooy assemblée nationale député yu APR yi am na ci neuf yoo xam dañu ànd ak moom waaye kii di Mody Niang teggi na wax jooju tegee ko rek loolu amul taxaloon nañ ñu bëri ñu mel ni que Aïssatou Sabara wala Mody Fall waaye loolu amaguñ ci prévu leer ni loolu deme na noonu waaye Malick Gakou ñëpp ñu ngi ko ni jàkk ay bët di ko xaar di xool ndax bokk na ci ñi nga xam ni ci élite émergente bi lay bokk parce que Malick Gakou nekk na koo xam ni fii nga xam moo di Guédiawaye am nañ ci moom confiance lool jaaxal ñu bëri lu tax ci élection municipale yi mu bàyyi ki nga xam moo di Aliou sal daal di jàll foofu xam ngeen ni Cheikh Sarr moo nekkoon fi nga xam moo di Guédiawaye waaye ki nga xam moo di Malick Gakou xëccëw la ñoom dafa leen bàyyee mairie bi Malick Gakou nekk na ci ay fondation modernité ak santé ak yoo xam mi ngi ciy yëngatu jàppale nit ñi waaye léeg-léeg ñu teg ci daram ay mbir yu taq suuf ba tax na def na fi den déclaration boo xam ne doon wax ni moom bokkul ci ay œuvre maçonnique dañ ko li nga xam moo di franc-maçon mu weddi loolu taqal nañ ko ba dugal ko ci mbirum borom ñaari tur yi loolu sax buy wax sax dem na ba teggi wax yooyu Malick Gakou tamit nekk koo xam ne ci wàllu sport am na ci soutien bu bëri bu indi indil waa Guédiawaye ba ki nga xam moo di Balla Gaye numéro 2 le lion de Guédiawaye fi nga xam moo di école euh, école de lutte Balla Gaye jàppale woon na leen lu bëri donte affaire politique taxtu na benn instant ñu dindi ko comme président d'honneur teg fa ñeneen digganteem ak ki nga xam moo di Balla Gaye père loolu ci wàllu politique ak ci wàllu sport gis nañ ni am na ñoo xam taxawee na jeunesse bi nga xam ni moom moo nekk Guédiawaye élection nag ku koy wax il faut nga wax banlieue boo nee Pikine ni parcelle di nga wax Guédiawaye parce que nag électorat bu forte moo nekk foofu mentorat boobu nag naka la ko Malick Gakou bu fekkee war na ko utiliser bu fekkee présenté wu na ci élection 2017 yi il faut mu déterminer wu ci fan yi ñu xam lan moo nekk ci boppam fan la jëm ak lan la bëgg def parce que seetlu na ni bu am ñi leen waxee ni dualité yooyu ak ñi ñëpp gis nañ ni am na ñoo xam bu ñu ñëwee bees wala ñu victimiser leen bu ñu ñëwee dañuy am doole ci li nga xam mooy politique bi te Malick Gakou dafa taxawee taxaw bu mel noonu ndax leçon boobu jàngat na ko wala jàngatul ko yéen a koy analyser jàngat ko ñu xam ëllëgam lan lay doon kon fii lañ koy wàccee leen wax ni dinañ ci dellu soir pour xam lan mooy ëllëgu AFP Malick Gakou ak élection yi nga xam mi ngi ñëw. kon nag mbokk xarit yu ñuy seetaan duñ def lu dul jàll ak yéen fi ngeen ñuy xaar pour xam kan mooy suñu icône du jour duñ lu dul bés bu ton rek jox leen ñu ko ñu xool kan mooy suñu icône du jour. kon nag ñoo ko gisandoo xam ngeen ni ci 8 mars bi bi ñuy sargal jigéen ñi moom dañ ko ci boole waale kii moo di madame ko déggee moo di Ngoné Ndour moom nag ku ko wax di nga wax seen petit gàlle di nga wax le petit bal des enfants ñoo amoon ak moom waxtaan bu yaatu gis ngeen li mu sañsee ak couleur yi kii moo di Ngoné Ndour nekk na koo xam ne suñu sœur la suñu xarit la moom leen la indiloon kon nag mbokk xarit yu ñuy seetaan ci gfm point sn wala youtube tfm agsi li nga xam moo émission bi gis ci sa bopp mbir mi fii la saa su rek dañuy joxante waat rendez-vous ñu indiwaat yeneen mbir yoo xam ne dañ koy jàngat may jaajëfal ñi ma àndaloon ci wàllu xarale bi Jibi ci bëtu wax fàgg bii ñu naan caméra waa daaray Pakatas ki nga xam moo di Diop Bachir moo ko fësal ba àdduna bi yëpp jot ci Tafa Njong ci nga xam moo di supervision bi maa ngi lay nuyu di nuyu Ndiok Malick suma xarit bi nekk Londres promoteur boobu di ko bëggee fi nga ma ko di bëggee di bëggee ñëpp ñi nga xam ne ñi seetaan di leen wax ne nag képp kuy wàcc fan la fii fan la moo tax ka nekk ci yoon wa a yóbbaale ca fii nag mooy gis ci sa bopp fii la ñuy dajawaat suba incha allah